ay ca jërë ngeen jëf mbokk internet ñuy déglu à travers partout dans le monde rawatina yéen ñuy choisir la chaîne leader si du mag bi ñuy wax Galsen People te nag dañoo ñëw seet si benn kilifa benn bon xam-xam bu mag koo xamante ne macha allah li muy def da ko donn si baayam macha allah mu jàng aussi eh, Alxuraan jàng aussi mu nekk nit ko aussi macha allah nekk nitu baatin eh, koo xamante ne macha allah Sénégal yëpp xam nañ ko à travers ñaan yàlla bi nga xamante ne mi ngi koy def. Euh, macha allah di def di def aussi ay résultats yu am solo ñu koy wax Cheikh Ahmed Tidiane Wilane Cheikh Ahmed Tidiane tey ñu am ay waxtaan yu am solo war a waxtaanee actualité réew mi. am na aussi li tax ma gën fee ñëw mooy kii di Ilimane Ndiaye nekk international Sénégal nekk aussi fële ca Marseille di joueur Marseille dafa am lu mu gis si moom si waa maanaam si carrière am dina di indi ay révélation yu doy waar incha allah xaar lañ émission bi léegi.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 allahuma salli ala sayidina muhammadin tibil xulubi wa dawaiha wa caafiyati alabdaani wa shifaiha wa nuuri alabsaari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki Galsen People hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu waa bitim réew di nuyu waa biir réew gi hmm. di leen ziyaara bu baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen macha allah asalaamaaleykum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 wala bitim réew ñu jëflanteeg yow ci seet suñu mënee xam nga suñu mënul xam nga. Mhm. toujours la ma koy wax nit ñi woot dama naa leen man seet bu dee bitim réew. Mhm. ñaari nit laa siy jël. Mhm. bu dee biir réew mi foo ma woowee boo ma mayee dix boo coupé ba mu woowaatee ma wax la problème bi nga am. waaw ñun seet moom bugguma ci sax wax lu bëri. yàlla may nañu ci loo xamante ni. Euh, yaakaaruñ ne liñ ci am am na kenn ku ko am. Mhm. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax képp ku am problème ci seet rek. Mhm. boo ñu woowee incha allahu taala lépp loo bëgg xam dinañ la ko xam dinañ la ko xamal. incha allah macha allah euh, macha allah Cheikh Ahmed Tidiane te macha allah mu nekk nit koo xamante ne borom baatin la képp koo xamante ne bëgg na say mbir leer nañ ñi ñëwal wootal gaaw si numéro yi nga xamante ne moo affiché wu suuf baaru bi bu soobee yàlla sa aju dina daal di faju sëñ bi dañuy ñëw si li nga xamante ne euh, macha allah nga mën ko loolu muy wàllum sarax ba ñu mën a indil sarax. waaw alhamdulilah sarax li koy génnee mooy seet seet li li tax nga nga nga ñëw seetlu mooy say mbir. say mbir li koy doxal mooy sarax damay faral di wax ne ñaar yii ku ko xàmmeewul mënoo ñaan ku xàmmewul sarax ak ku xàmmewul problème wu nit li koy saafara yow mënoo ñaan sarax nag damay faral di wax ne képp ku ñëw si ñun sant ñu ñaan ñu seetal la wax la sarax yi boo ko deful ñun duñ la ñaanal ñun ñàkk la ñaanal sax wax la nga def sarax yi moo ñu gënal ñu seetal la ba pare ñaanal la te defoo sarax parce que la plupart ñii ñaanalaate yëpp di am problème li indi seen problème mooy ñu seetal nit ne ko sarax bi nga war a def wala bee mu bañ ko def nga ñaanal ko gàllankoor bi ñëw dal si yow moo tax sarax lu am solo la nit ki da ko war a fonk yàlla may nañu ci nag bëriwul luñ koy wax nit mu génnee ko te ay aajom du fajlu lu bu la neexee boo saraxee sax mun nga fa jaaree bañ a ñaan allahu akbar waaw kon sarax nekk lu am solo macha allah euh, macha allah si Oumy Tidiane mën naa ne sarax kon nekk na lu am am am solo si doomu aadama sëñ bi de sàng dama ñëw dugg si gis ngay def ay sangat mën naa ne sangat yu doy waar ak euh, mun naa ne aussi euh, doy na waar daal sëñ bi li nga doon sàng li nga doon xooj si ndox bi mbiru yéema yooyu lan la. waaw xam nga. ndaw ñaar la soxla lu ko mosal ak lu ko musal. boo mosee te muccoo. boo moytuwul da ngay gàdd fan da gàtt fan. boo muccee te mosoo sa dund du neex kon ñaar yi daa war a ànd léegi liy firndeel loolu mooy nit ku nekk dafa am loo xam ne dafa dafa war a ànd ak moom lu koy doxal imma benn mu nekk ci wàllu ubbeeku walla mu nekk ci wàllu kaaraange ba tax na man damay faral di wax ne képp koo xamante ni danga bëgg ubbeeku boo déggantee ak ñun ñu ubbi la ci kàttanu yàlla ak bi allahu akbar si yàlla képp koo xam da nga bëgg kaaraange si boo ñëwee. Mhm. ñu defal la kaaraange boo xam ne du am benn euh, sikki sàkk. kaaraange kaaraange. léeg-léeg mhm. nit woo ma ne ma kaaraange laa bëgg ma ne ko baa ba baa weer bi fayaku ma. Mhm. mu ne ma mu ma déedéet ma ne ko ah man sama kaaraange gi léeg-léeg nga sangoo ko sax. mu kii sa euh, maanaam sa salaire ni mu war a ñëwee. mu tardel ko. parce que bu la am na nooy laalee kaaraange bi rek day day dem ba day baare sa yaram bi yëpp mhm. lépp lu si war a ñëw da koy baare mhm. mooy tax loolu ngay gis soixante-dix wa in yakaadu la mhm. dañ ciy defar wàllum euh, wàllum euh, neex yaram bu neex dañ ciy defar ci wàllu kaaraange. macha allah heure bu ñu déggantee daal ñu faj aajo yëpp. am na solo euh, saa nga fi nga daanelee laa bëggoon ñëw rek ñu wàllum kaaraange. sëñ bi kaaraange nekk na am solo. waaw. Mhm. kaaraange li may wax. Mhm. damay joxe benn sax pour ma nit ñi xam ne man awma sax yenn jot yi. Mhm. gis nga euh, wattiini. ba naasi. boo ko jëlee. nga bind ko. boole ko ak soixante euh, cent onze pouce. ak cent onze xeer ak leneen lu muy àndal. parce que alxuraanul karim boo ko bindee ba sangu ba sangoo ko. lu mu fekk sa yaram bi da koy dindi te dara dootul ñëw sa yaram bi ci lu bon. laa ilaaha illallaah billaahi wallaahi tallaahi loolu dama koy maye képp koo xam ne ndaw nga. Mm-hmm. képp koo xam ne ndaw nga mu jàng. Mm-hmm. mu bindal la wattiini. Mm-hmm. teg si iqra. inna anzalnaahu lam yakuni. ida zulzilatil ardu wal aadiyaati. teg si alqaaria teg si alxaakumu takaasur teg si wal asri. teg si waylun li kulli alam tara kayfa. تكسي في تكسي أرأيت طيب تكسي إنا أعطينا قل قل يا الكافرون تكسي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله سكر بنا من سي أفواجا أبرا نيا إجل تبات قل والله أحد قل أعوذ برب فلا قل أعوذ برب لي بنا كو بند الله بولا كاك أندل ني يو قوم كو بغ كوي أماتي كارا كوي أودتي كارا عن واي دو دون دو دون موم دي waaw te doo déggee ni ma waxee rek nga xam ne ko xam a wax. macha allah Sénégal nag tellement boo ku génn wax rek ñu am fuñ la dëkkal. Hmm. waaye barke alxuraanul karim secret bii ma wax képp koo xamante ni doomu daara ga boo ko déggee di nga xam ni kii li mu wax nii du waxu xale waaye waxu mag la. man doomu mag laa defaru mag laa man mag ñaama defar. bu hmm. ma wax sax ma xamu xale. Hmm. waaw macha allah kon alhamdulilah kaaraange boobu leer na. macha allah euh, macha allah Cheikh Ahmed Tidiane Wilane am na solo bu baax a baax a baax. ñu jël nag suñu beneen question rek. muy wàllu papier. sëñ bi dégg naa da ngay dimbali nit ñu am papier lu tëj nag euh, dégg naa noonu la yombee si yow. waaw papier. Mhm. li may wax rek. Mhm. soo ubbeekoo lépp lépp yomb la. Mhm. wàllum papier dafa am ñee ñeenti aaya yu nekk ci alxuraan. yoo xam ne day dox ci papier. waaye bi ci gën a gaaw mu ne mooy suma sabila yassarahu man nit am na vingt cinq ans États-Unis amul papier ñu béggante même pas quarante jours mu am ko. barke alxuraanu karim même pas 40 jours yàlla yombalal yombalal ko papier boobu bu ma bëgg sax di wax ci yenn yi parce que loo wax rek sérieux yi euh, nuñ koy defee te li tax mu jug duñ ko xam waaye papier képp ku ko bëgg nekk ndaw jëlal aaya bii nga koy liggéey mooy inna haada la rizquna ma lahu min nafaat soo xamee li muy àndal pour nga am papier day yomb am na solo bu baax a baax a baax sëñ bi damay ñëw yow nag si question bi nga xamante ne aussi ñu bëri ñu ngi ma koy bëgg pour ma poser la ko muy wàllum nopp tasxiir boole da ngay yëngu si wàllum nopp. waaw nopp euh, awma ci morom. macha allah. billaahi wallaahi tallaahi. suma rusul woon am xam am raw. Mhm. su ma rusul woon lool. ma ne li ma am ci noob yàlla bindul mu bu ko am. li ma xam ci noob. gaw ma ne jigéen jur na góor bu mun loolu li may wax nag du wax xale mhm. ba tax na mhm. du ma sax euh, développé yenn développé mhm. mais képp koo xam ne farata moo la tax a jug boo ñëwee bu ñu la noobalee di nga xam ne noobal lañ macha allah yaa ñu ngi am ay résultat de ñu ngi ciy am ndam ñu ngi ciy am dañ ciy am sax turandoo allahu akbar waaw macha allah loolu dañ ko jàngee xam-xam avant ñuy dugg ci wàllu baatin sax dañ koy xam maanaam ñun suñu kër mooy kër goo xam ne Mm. koo maanaam euh, loo loo dind si garab gi rek. Mm. am na lu mu la war a mun a jox. parce que ñun mm. suñu pàpp mooy kaani ñun ñëpp ay garabu maanaam doomu kaani moo gën a sax. dëgg la du ma. macha allah nopp daal sant yàlla bu baax a baax. macha allah macha kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax daanaka nag émission bi léegi mu jeex mais du ma dem mukk nag saa waxtaanee wàllum faj mooy ñu ñëw rek si néew kàttan. hémorroïde ak ndoxum siti néew ko nag. Ah, néew kàttan. bépp képp ko xamné goor nga problème nag nag laay bañ képp koo xam ne góor nga mhm. soo bëggee kàttan soo bëggee kàttan soo bëggee kàttan bo ñëw ci man dama nga marché nga jënd ñam bi bu la neex mhm. xam nga ñëw katan ben day ñëw ci ben côté mhm. da ngay jugal mais du dëgër wala ngay sey ak sa jabar du yag wala sa nox dëgërul demal marché nga xol ñam bi bo bëgg bo xamné yow bëgg nga sa affaire bu jugee mu toll non demal marché nga jënd ko nga indil ma ak ñaam bi boo mën di jënd. barke alxuraanul karim yow yaa ji yow yaa xool lu la neex si ñaam bi ñaam bi bu la neex maanaam loo am noo xam ne mënoo ko leeral ci kii. Mhm. mais noo bëgg sa ba affaire mel. Mhm. jënd ñaam bi bu mel noonu nga ñëw. lay bindal jox la saafara nga dem togg ko nga lekk. allahu akbar. billaahi wallaahi tallaahi dootoo fajoote. te man xam nga li li may bañ li ma li ma li ma waxoon benn waay dama wutal ma ñaam bi mu dem ut bu ngande mën ne ko bii bëri bëri na de. Mhm. mu ne ma def ci liñ ci def ma def ci loolu mu ñëw ne ma waaw am yoo xam daal mënoo ko wax. mais képp ku am problème rek si wàll tëre euh, néewu sëy boo ñëwee mm. incha allahu taala. Mm. ñu fajal la ko. macha allah te di ci gis résultat. macha allah émérite. Mm-hmm. feebar bu garaaw la bëriwul ñu ko dul am. Mm-hmm. te émérite day tax boo tëddee doo nelaw. wala boo nelawee mm-hmm. toilette doo dem toilette ni ko bëggee. wala sax booy sëy ko soxna ni ko bëggee doo ko defee. bu génnee buggee ñoo ci am hémorroïde ñu bëri dañ naan kenn mënu ko faj mu wér hmm. mais ñun biñ ci am bu ko fajee day wér day tàqali kook yow hémorroïde nag dafa mel ni garab buy nekk ci biir hmm. di meññ di meññ hmm. léegi nag loolu ay dagg-dagg la laaj li ñu koy daggee nag allahu akbar ba mu wér moom ndoxu siti ndoxu siti amuñ si morom maanaam maanaam li ngay déggee mbëri naan ñun làmb la ngi Mm-hmm. ñun xaalisu alquran la ñuy ngénte xaalis faj la ñuy maanaam bu ñu fajul dañuy tooñ moo tax Eumeudi ndoxu siiti moom mm-hmm. euh, liñ ci am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 nek jour olympique de Marseille bu démé coupe d'Afrique te ñànduwul deful ay sarax su fa juggé su fa juggé waxuma na Sénégal mais pour mu olympique de Marseille sax problème lay doon hein limay wax nag tagu mako ci bakkan de sëñ bi foo teg loolu wax ni tagu mako ci bakkan Iliman ndjay xam carrière kan la nar yor jaawo Balde Kayta ñu ñaar billaahi wallaahi bis bu ma déggante won ak seen mbokk bu dinañ dem Coupe d' Afrique te buñ fa jugee waxuma la ballon d'or Afrique mais ballon d'or FIFA sax mën nañ si bokk ñu ngi koy kii. mais lan mooy problème bi. problème problème bu ñu am dafa am ay affaire yoo xam ne dafa nekk seen ñoom physiquement physiquement pare nañ mais mentalement lañ pare xam nga football confiance moo koy def xam nga football confiance moo koy def hmm. la tax ñu war a am confiance nag moom moom lañ dindi si ñoom. fa nekkul moo fa nekkul. te wallaahi li may wax ni waxuma pour kenn ne ma dëgg la mhm. waxuma pour kenn ne ma da ngay fen mhm. man li may wax sama diggante yàlla laa ciy xool mhm. su dee dëgg la man xam naa su dee du dëgg xaw ma maanaam damay wax ñi may déglu xaaruma si ñoom ñu ne kii li may wax dëgg la xaaruma si ñoom ñu ne kii li may wax fen la man li may wóor li may li mooy man li may wax dëgg la te man Ndiaye bu defaruwul su dee dina dem sax coupe d'Afrique laa la wax hmm? su dee dina dem bu demee te ñaan luwul ay hmm. mbokkam jugu ñaan ko hmm. génnee sarax yii ma si moom oh Iliman Ndiaye carré xoola man dama toog barki dem ma matsam bi passé mhm. contre defe naa ñoom reen la mhm. dama toog am benn nit ku ñëw ne ma ñuy waxtaan ñun xam moom supporteru Marseille la ñu ciy waxtaan ba si kanam mhm. mu ne ma dama bëgg sëñ bi nga xoolal ma affaire la Iliman Ndiaye jaaxal na ma trop problème yi muy am di xuloog seen côté yooyu yooyu noonu ba ma ko xoolee ma ne ko génneel sarax bi ak bi gis nga seen match bi ñuy joué gaaw génn bi ci gën a yomb mu ne waaw ma ne ko mooy carton année eh, dina génn te course bi da ko génne nii laa ko waxee mu amee. te noonu la nga ko joxee carton bilaay wallaay te loolu moo gënoon sedd ci moom. Mhm. Iliman Ndiaye bu jugul si boppam. Mhm. carrière carrière moo carrière sax mooy gën a bon bu Diao Baldé. dafa nar a yàqu. Diao Baldé CAN 2017 bu mu defoon ku ne la woon dina toog ba heure bi du jël ballon doo ko gëm. ñoom mhm. ñaar li nekk seen yaram yëpp billaahi wallaahi laay seen mbokk yi bu ma seet see ma dindi ko. allahu xam naa seen i sarax. xam naa li tax muy waaw waxuma nag pour ñëpp ne dëgg la de. dëgg la. laa hmm. man xam lu ma gën a naqari. Hmm. ma tëdd guddi yeewu yàlla wan ma ci wàllu àdduna. Hmm. ay caaxaan yi ma gis si loolu daf may naqari. mais dama xam ne kii doomu jàmbur la avenir la. am yoo xam ne mi ngi ci yaram bi. ma bëgg ñu dindi ko. lii kese moom wax la mais waxuma pour dara. macha allah am na dara mais li ma wax man xam naa ne dëgg la te suñ defewul lii ma wax. soo moytuwul dinañ am problème. la ilaha illallah. waaw jaaw macha allah Cheikh Ahmed Tidiane Wilane kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax Cheikh dama bëggoon ñëw yow rek si beneen question li nga xamante ne mën naa ne mooy wàllum làmb lutte euh, sénégalaise macha allah ñu am na combat boo xamante ne moo am si diggante ak Modou ak ki ñuy wax amaa ak ki ñuy wax Boy Niang combat bi noo ko gisee sëñ bi. waaw komba bi lu may wax rek man bëgguma sax di faral di wax si yii nii waaye dafa ne kóllëre la. billaahi ñu ngi génn ne dañuy ñaanal Moodu mais gëm naa ne boo demoon jàpp si euh, waa kër Moodu kenn si loxoom nga ne ko yóbbu ma ci sëriñ si sëriñ bu mu lay yóbbu Wilane lay sant histoire la nag hmm. benn mbër bi amoon na tànk bu garaaw sam papa moo ko faj bi dëkk parcelle barke alxuraanu karim mais làmb ji ma wax lu lu lu doy waar ci côté Boy Niang hmm. làmb ji fekk mi nga am coow moom na xam ne day ñàkk feeg coow coow jour lamb jàppal bàyyi arrangé wu ko Modou tànk lamb jaa ngi am coow moo ko arrangé boo Niang tànk mi ngi dal moo ko arrangé saraxu làmb ji na képp koo xamante ni yaa ngi may déglu mooy ñu faral Modou loo ñu faral boo Niang ku ma ci déglu ma wax la loo xam ne boo ko génnewee boo daanul boo ñëwee ma delloo la sarax xam nga doom man doom ko bu ma ko génnee doo ma ko jox danga koy génnee dem joxi ko keneen mais boo ko génnee ba pare te daanu boo ñëwee ma delloo la xaalis bi billaahi wallaahi làmb nag du ma du ma ci wax man nekkuma kuy dem vaar de hmm. pare wu ma sax yu ñàkk fay di di ma yóbbu vaar waaye daf fekk da nga ma ci laaj rek hmm. ma tontu la ci waaye li may wax nii dara du ko dindi billaahi wallaahi xam naa ko yàlla xam na ko lii tax mbër bi daan hmm. xam naa ko léegi nag euh, dëkk bi dafa doy waar sëriñ ñëpp ñëpp ay génn ñëpp ay génn euh, di wax rek waaw mais man nag du ma du ma défendre benn sëriñ waaye du ma xalab benn sëriñ parce que balil insaanu ala nafsihi basira nit ku nekk moo la gën a xam boppam waaw temps dama damaa génn lool ñu laaj ma lu tax génnoo ma ne leen képp koo xamante ni da ngaa bëgg ñu seetaan la doo bëri looy seetaan képp ku ñu képp ku ñëpp soxla doo bëri looy génn képp ku bëgg ñu déglu la doo bëri looy wax loolu rek moo ma téye mais limay wax ni dara du ko dindi. ma sha allah Cheikh Ahmed diam bilal kaddu gi amna solo bu baakha baakha baax waxtan bi waxtaan lol neex na lool léegi nag dañ lay daal di bàyyi nga tagu suñu bokkam xamna ne ku lay seetaan. waaw alhamdulilah di tàggoo tàggatoo bu dul tàggoo rek di wax wax bi lépp lu si jub ci yàlla lu dëng ñun ñoo gàtt xam-xam rek mais incha allahu taala képp ku digg dégganteeg ñun si yii ñu wax la rek soo fi ñëwee ànd ak ndimbalu yàlla ñu dimbale la yàlla faj say say soxla ak say aaj bi barakat yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah